nga xam ne ñu ngi ci numéro 2 mu di rewind fu waay mën a nekk nag dañuy rafetlu àndandoo bi te xam ne nag dañuy dugg nag ci wàllu musique ah, te dafa am solo lool wax naa leen ah, saa bu nekk rek ne dañuy dellu siwaat ndax Rewind tuur wi day wuyu borom ah, boo génnee sa album nag ba agsi rek album bi bu ñu ko dégloo tuuti rek wala sax ñu déglu ko bu baax daal di koy fàtte jël def ci tiroir yi ñun nag à travers Rewind dañuy andiwaat li nga xam ne mooy album bi bés bouton yi rebobiner waat indiwaat li nga xamante ne nii bëgg nañ nit ñi taxaw seetlu ko le temps de li xam ne moom moo di bi dañ leen di yóbbu ci voyage àndandoog artiste bi ñu invité euh, ki nga xam ne moom la dalal ci numéro 2 wu Rewind mbégte lañ ciy am saa nekk ndax Sénégal ak àdduna ñëpp apprécier li nga xam ne moom mooy talent ndax nee naa leen talent boo ko amee rek loo def rek da nga cay révolution euh, ki nga xam ne moom laay bëgg a dalal tey jii euh, dama lay bàyyi nga nuyoote ba pare nag su ko defee nag ñu daal di dugg ci waxtaan bi waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla mhm. dañuy wax ne as ñëpp maam ñëpp maanaam di di la gërëm yow Kebs di gërëm euh, maanaam seen jiit mm-hmm. et puis di wax sénégalais seen doom ñor na toog war waxtaan ak yéen. bu mbégte lañ am pour dalal la. Mm-hmm. Euh, su ma waxee 2009 album bi dafa ñëw rek def boum boo xamante ne bii mm-hmm. moo di solution. foo dem ci àdduna bi moom ngay dégg mu nekkoon tamit sa premier album euh, boo xamante ne bii Sénégal ak àdduna du ma tàyyi mukk di ko wax la mu def def na ko ba pare. te titre boo ci yëkkati rek bu ma jaaree ci borom ndaam. Euh, muy ci côté bu mu mën a doon su ma paree jaar ci li nga xam ne moom la ndóoreel lañ koy prononcé wala. ndóoree ndóoree. Ah. ndóoree bu ma hmm. paree ñëw ci pikinité bi nga xam ne tey moom la ñu fas yéene euh, waxtaanee ak itam titre yu bari yoo xam ne mi ngi ci biir album bi. waaye hmm. abu Abou euh, 2009 ba léegi dafa nekk loo xamante ne ni showbiz du milieu bu yomb. Hmm. waaye boo xee ñu ne la Abou dafa réer. Mmh. abu kenn gisatu ko abu lan moo tax mu génne album mmh. syndrome mu premier album daf ko dal mmh. euh, ci lan la parce que talent bi abu am kenn weranteetu ko ci àdduna ñëpp xam ne abu ci cubaloo dafa mën a way lool dafa dégg lool te dafa nekk xale daal di ñëw génne benn album album bi génn def buum waaye booboog léegi euh, mu mel ni rek dafa mel ne yëf yi dafa ralentir. dafa ralentir yëf yi dafa ralentir. ndax titre bi ñuy def tey la lan lan lan moo waral loolu yëpp abu te du nag du ñu bëgg di répété wu. Mhm. mais dañu bëgg introduire loolu. nga wax ñu dëgg dëgg dëgg dëgg lan mooy. Euh, problème bi ba nga xam ne abu fi mu toll nii. gëj naa génne waaw gëj nga génne album. Euh, lool talent mhm. baa ngi fii lan moo ko waral parce que laajte bi chaque jour ñu laaj la ko mais tey damaa bëgg ci biir mhm. Rewind nga tontu tontu bu particulier boo xamante ne dina dalal xelu ñëpp te xam ne aboo ngi fi ba tey waaw waaw ginnaaw bi ma santaate yàlla rek dina expliquer la xamal ne la. waxoon naa loo ma laaj dama koy tontu. kon pour ñu bañ guddal. mooy que ni koo fi gis ku ne rek buy def dara bu soñoon moo ci jël paie. Mhm. comprendre mhm. na ko sax ba équipe nationale bu ñuy fubal joueur bu ne. Mhm. da nga am say fan si bopp. te pourtant ñun ñëpp ñooy bokk jëmukaay. dëgg la wooy noonu la demee quoi wooy kenn ku si nekk si ñun bëgg naa doon paie. <coughs> mais bu bu ñuy fàtte yàlla quoi nit ñi. des fois di gis koo xamante ni ci làmb ji sax day xëy nekk roi des arènes xëy dootu ko nekkaat. te pourtant du du koy bëgg tout le temps. man bu ma soñoon maman yi ma toll nii boo waxee 2009 2010 day fekk ma génne album 2011 ba 2012 2013 ba 14 ba 15 ba 16 mais yàlla mooy dogalee nii. parce bu fekkente ne liggéey bi la. parce yaa ngi tax naan Abou Thioubalo ku am talent la. mais li yëm nit ñi mooy. gisatuñ ko ci kaw seen bi. muy woy wala bu fekkente ni sax mi ngi woy ay woyu jàmbur lay woy comme ay ànd ak ñoom salaam. Mhm. wala ànd ak keneen def wala Youssou Ndour woo ko mu ñëw ànd ak moom. Mhm. def dara ak ñoom Ami Collé. Mhm. mais pour ma génne su ma yëf bopp mooy li ma la expliqué moyen la. xam nga doole yemul quoi. te ginnaaw doole yemul ku jekku la da ngay baale. tooñu ma kenn koo xamante ni dafa ma doon jàppale ma tooñ ko ba mu tax mu téye boppam ci man. mais ñi ma jàppale ñëpp ba euh, ba jamono ji may ñu ngi fi quoi comprendre yàlla xam na ni ñi ma doon jàppale amul ku ma ci woo ne la kaay jàppale ma ngir yàlla dama ñëw nga gis sama talent gis ma ma ñëw nga may jàppale mm-hmm. di ma jàppale ba album bi génn mm-hmm. jaar fi mu war a jaar fépp ci àdduna mm-hmm. mais man li ma mën du dara mënumaa dem di récupérer leneen lu dul man suma voix laa am ak sama xel tëju di répéter xool li may woy lan la daf mel ni mbër muy entraîné rek la ma waroon def yëpp def naa ko ma woowaat ci Jimi mbay woo ci laayloo bi nga xam ne moom mooy mooy jàppale Youssou Ndour ñu jàppal ma morceau yi pare na mhm. mais dañ koy mixé mhm. man ku ne xam ne man du ma mixé mhm. léegi ñuy mixé euh, mixé affaire bi ñoom ñoo ko yàggal muy yàgg te xam nga ki lay mixel di la dimbali boo ko tegee pression mën na ko def comme ni mu la neexee te boobaa bu génnee sa xel kese lay génnee waaye gisoo ne abu waroo waroo woon a ut euh, maison de production pour mu yëf yi gën a yemb gën a gaaw <coughs> ngeen baal ma mais loolu du nit moo koy wutal boppam comprendre nga Uh-huh. xam nga de xam nga exemple comme comme euh, comme seen petit gàlle uh-huh. yaa bu doy waar uh-huh. xam nga ci nekk di way nii na ñoo xam ne booy dañ leen intéressé léegi maison bi du yaay dem ci ñoom imposer leen sa bopp force ah mais pourquoi pas du imposer sa talent moo xam nga fii fii sooy sooy maison dafa mel ni benn moo fi nekk benn benn moo fi nekk bu ëppul doole it benn moo fi nekk boo xamante ne ñu bari taamu leen ko muy presse art dëgg moo neex yàlla quoi bu fekkente ne maa bëgg laaj ci ñoom mën nga ma laaj ma tontu la <laughs> damay toog nit ñi naan mooy waa Prince Art nangam nii des fois mooy dégg ay rumeur ci mbedd mi dégg naa da nga xuloo ñoom dégg naa lii dégg naa lii musuma jot ak ñoom dara toog naa fii sa émission wax la ko lenn mooy suñu problème ak ñoom musuñu am contrat musuma liggéey Prince Art lu dul dama fa ñëwoon ñi may dimbali te yàlla rek a tax am ku tudd njaga ku ma fa yóbboon ndax ñoo bokkoon kër njaga sàmb ñu bari sax dañuy jaawle naan njaga nduur la mhm. fekk njaga sàmb c'est que maanaam nit ñi dañuy kii quoi des fois dañu jël samay wax mhm. yóbbu ko mhm. te pourtant may wax ak ak ñoom la nettali doon benn ñu bëri dañuy jàpp ne Njaga Samb moo fa ah. yóbboon mhm. bi ma fa yóbboo li taxoon ma dem fa xam naa ko mhm. ñoom bi ma demee produire nañ album bi ñu génnee ko bi ñu ko génnee liñ ci def ñoom xam nañ ko mhm. man li ma ci sonnee xam naa ko li ci Njaga def xam na ko bi ñu paree dañoo bàyyi ñu demal suñu bopp bi ñuy demal suñu bopp si biir demal suñu bopp boobu dañ ma bàyyi ak Njaga comme ñoo bokk kër ñoo bokk lépp ñuy liggéey ndoom ak ñoom prince aar moo la ah, bàyyi woon ak ñoom léegi njaga moo ma fa indi moo la fa indi njaga moo ma fa yóbbu ba ma xamante ak ñoom mhm. comprendre nga mhm. njaga li mu waroon maanaam c'est que li ko waroon ci diggante bi yëpp def na ko mhm. léegi dana bàyyi ak moom ma nekk ak moom mais teewul ñoom it fu ñu am programme lu ñu am dinañ ma woo jamono jooju ndax jamono jooju xew na macha allah lu nuy def mu ne na ma woo téléphone wala Ibou Ndour woo ma ma ñëw waaw léegi def ko waa xaaral xaaral ma continuer fii fii ah Abou dafa mel ne yow rek yaay wax waaye demal demal demal yow euh, tey jii question bu simple laa lay poser rek te xam naa ne fi nga nekk yaa ngi expliqué mm-hmm. te képp ku toog di seetaan yaa ngi bàyyi xel bu baax ndax mm-hmm. da nga dugg ci xolu sénégalais yi nga xam ko mm-hmm. nga bañ ko xam euh, fi ñu toll nii Prince Art pare na pour produire la yow sa position lan la mais képp sax bu pare pour pour produire ma damay ñëw. jeex na kon nañ teg foofu baaraam ku xam ne Ibou dégg na la Ngoné dégg na la ñëpp dégg nañ la déglul mais ma teg ci dara sama ah. album actuellement sama album dafa pare ba pare. même ku paroon pour produire mhm. na loolu yëpp ay terme la yoo xam koy liggéey waaye révélation am na ci biir li nga xam ne mooy rewind waaye abu mhm. xam nga sànq bi ma lay wax yaa ngi expliquer. Mhm. tey jii ma gis beneen abu ci bolo boo xam ne mature na. parce que euh, bu ñuy wax naan abu dafa jékki-jékki affaire yi euh, yaa ngi wax ne yàlla sunu borom yàlla moo jiitu lépp. mais des fois di nga dégg ñu ne peut-être abu. encadrement bi nga xamante ne moom la waroon am la amul. abu xëy na dem na ba ci biir nag. ni mu xewee woon est-ce que am na kenn ku ko fi xewee sax après bi album bi génnee premier album rek. est-ce que du moo yéeg ci hmm. bopp bi. Hmm. mu am tuuti euh, succès bi yéeg torop bu baax. est que loolu tam joué wul parce que yow. Hmm. lii naka doo toog ba ci yàgg. xam naa ne sax ni nga ko waxee dara bineegar <laughs> di nga toog ba ci yàgg sax nga am lu la métti. wala nga réfléchir wala nga xool lan moo waral lii parce que lii ngay expliquer. producteur bu fi nekk la mhm. génne loon la album mhm. ak ni mu mun munti demee mhm. producteur bi pare na yow nga pare lépp nga xamante ne daje la lépp a daje mooy talent bi moo jiitu te lépp a ngi fi lan moo ko waral doo toog wala nga toog ba ci yàgg nga xalaat ne waaw bi ñuy way la tam ah, parce que showbiz dafa parce que explication yu bari nañ ko joxe ñenn ñi dina gis ni ah est-ce que du affaire mystique moo jàpp abu ci bolo beneen bi ñu ne est-ce que du ah, succès bi moo yéeg ci bopp bi ba moo tax ba mu tollee ci li nga xam ne moo diggu ndëndam dëgg mënuloon a gérer succès yooyu yii yëpp ay facteur la mhm. yow bi nga toogee ba def prise de conscience ban nga ciy wax su ma fi nekkee di way ba ma fi nekkul di way mhm. amul kenn njëriñ mais man man la amal njëriñ quoi mhm. kon de kon kon dèjà li am solo ba am solo mooy xam nga ngay xol nit ki di ko yërëm wala ngay xool nit ki di ko jéppee ban moo gën nga koy xool di ko yërëm moo gën mais kenn bëggul ñu yërëm la su ma sañoon fa ma tolloon fu ko raw laay toll mais loolu dafa am lu mu laaj parce que talent kese doyul waaw li ànd ak moom yëpp wax nga ko te nee nga Ibou Ndour mi ngi lay dégg hmm. maison de production bi Prince Art la hmm. kon loolu après à suivre la di nga ko doxal léegi hmm. dañuy ñëw ci li nga xam ne moom moo di euh, album bi ñu tànn ci benn woy boo xamante ne bii yaa ngi ko tuddee pikinité li la liyee ak pikin tamit nekk lu rëy nekk lu foor ndax nag fa nga jóge euh, te it dund nga fa te xam nga talent yi nga xam ne ñoo fa jóge nga ñëw di ko représenté bu baax bokk ci njëkk a wax moowu pikinité lan nga ciy wax ndax ci biir way bi tamit am na solo yaa ngi ciy wax naan waxul noon mooy sa promotion waaw mais waxuma waxuma ak sama bopp. Mhm. parce que ñëpp abu abu ci borom la ma xamee ñu si bari. mais da ne abu si sama tur dëgg dëgg abu si la. boobu moom noonu buy wax ak. boppam dégguñu la kuy maanaam sa kanam dafay dëll. mais waxoo sa bopp da nga ko wax de manière générale. ok léegi ci biir foofu exemple quoi. Mhm. képp ku mënti doon rek. Mhm. maanaam ci lépp loo nekk di ci yëngu. il faut ñu wax waxal la lu ñaaw. xool li ma la wax ci yow. comprendre nga yow gis nga yow yow xam nga ni waxu noonu am na. mais nit ki mënul jàkkaarloo nit naan ko yaay sama noon mais am nga droit toog à travers sa way muy nga wax ko tey xool mën ngaa sax bañ a am noonu mais da waxal nit ñi mhm. ñëpp laa waxal quoi képp koo xam ne am na noonu na jàpp ni promo la mhm. ndax des fois man nit dama waxal loo xamante yóbbu sama tur foo xam ne sama tur sax eggu fa mhm. des damay ànd nit sama oto dawal di dawal de man ma ab yow di nga lakk ñu bari man mii baal maax sérieusement dama la doon jëw lu ne laan wax ci yow mais nit kese nga mais nag nit ku dul juum amul am na ñoo xam ne maa leen mais mënu ma xam ñan la képp koo xam ne tooñ nga ma wala ma tooñ la nee naa nan maam nañ c'est que nan baalante quoi yi bañu maam bañu ñu ku fi xew dee ku xew duñu ànd ak yow ok non du ñëpp lay a c'est que am na ñoo xam ne ba abadan daayi man ak noo mel ci àdduna mhm. yow leen bëgg am na ñoo xam ne ba tey fu ma leen romb dinañ ma wone ma morceau bi nga way sa ñu bëgg ku mel ne nen ak fa non c'est que nen sax moom moom kii la nu mu tudd <laughs> moom guinéen la dégg ko mu de <laughs> moom bëgg su kii ko way bi non xaar moo ci la ah. sa xarit la moom guinéen la mais ah. faa mu mu bëgg ah. mais nee na moom guinéen la quoi comprendre nga moom li ma moom li ma mën ci moom mooy yàlla na am jëkkër mu ñëw fekk si ko woyal ko loolu nag ay dóor la boo soo ay dóor kepp si li am solo mooy na Sénégal yëpp jàppale bii booy abu jubal non bii booy jàkkaarloog ñoom wax leen ko comprendre nga lan ma jàppale ndax abu bu bees moo fi nekk jàppale bu mooy am na ñoo xam ne billaay bu la neexoon suba ma génne album. Mhm. dégg nga non album bi kay fi muy génne ñun xam nañ ko gisee Youssou Ndour. ndax joxe nga fi loo xamante ne Youssou Ndour ci benn fan la ma woo. Uh-huh. ñu toog waxtaan ma moom. Uh-huh. billahi deux jours la ñu dugg studio. mu uh-huh. enregistré ma ma génn mu dafa ma clip bu bees. mooy seku taal bi mu génn léegi. Euh, li nga xam ne moo jëm ci noonu dañuy ñëw ci parole way bi mhm. euh, ñu gis ni tamit euh, li nga xam ne moom moo di solution mhm. bindkat yi dañu am solo torop ci mhm. réew mi ku ci mel ne Kabou Gueye ki ci mel ne ñeneen ak ñeneen moom moo la bindal li nga xam ne moom moo di solution waaye bii nga xam ne moom la ñuy waaj a def mooy noon muy kii nu mu tudd pikinité parole yi nga ciy wax lu doy waar lu am solo jàkkaarloog sa noon di wax ak moom est-ce que mën nga ci ñëwaat nit ku baax du waxi noon yay waaral may avancé ba pare dolli ci ne nit ku baax a baax du ñàkk noonu kon dèjà waxuma ak sama bopp kese. looloo waral ñu xëy di wax ak suñuy noonu waxi bañ yay waaral may avancé ba pare ne ay yow mi abu si. Ah, waxu noonu yi sa promotion la des fois dama koy woy woy ba mu neex ma am na fu ñuy tëggee may wàccee samay loxo. Mhm. nan leen Muhammadu Rasulillahi. Mhm. ay waaye moo nu gënoon fuuf ëppoon ni noonu. gëm li mu gëm xam li mu doon abu jàppal dina mës a baax maa ngi koy wax suuf mais ñu bëri duñ ko déglu dina baax de maa ngi ko doon wax te yàlla xam ne li ma duggoon ci woy yëpp def naa ko la ma ci yàlla may na ko la ma xalaatoon maam dafa jéggi sama maam maam dafa weesu sama njort abu est-ce que am nga ay regret loo xam ne danga koy rëcc loo xam ne rëccu naa ko waaw ci sama àdduna waaw ci sa ci sa ci sa wàllu ci woy nii waaw sérieusement parler bu dee maam c'est que bu yàlla rek taxee ñuy wax quoi amul ku ma mës a jotel ci wàllu woy tooñ ko moo tax amul ma ciy rëcc. amoo benn regret. amul ku woykat laa wax de musicien ak ku mënti doon mhm. amul ku mën a taxaw ne la Abou Thioubalo def na ma lii ci woy waaw kon fi mu toll nii nag waa Sénégal ak waa àdduna seen doom a ngi nii am na talent léegi mature na euh, te yaakaar naa ne fi ñu toll nii Sénégal ak ñëpp a d'accord ni Abou Thioubalo talent kese la euh, te loolu lu weesu la beneen page la mhm. page bu bees la ñuy ubbi jëgmal ci jëm ci ñi nga xamante ne ngoonee ubbee nga lay déglu mhm. soo paree na la koy régler yow yaa xam euh, ñoom la contacter wuy ma pare nañ ci wax boobu sama boy ko yor <laughs> <laughs> ñëwul de mais nit ñi exemple lañ des fois dañ may xel grand mais moom sama boy la comprendre nga. ah sa boy la du sa grand mais sa boy la sama boy la moo xam ne est-ce que mun nga Abou damaa bëgg fi mu toll nii xam nga Sénégal ak àdduna ñëpp a naan Abou Thioubalo dafa mën a woy te ñëpp a ko nangu mhm. nga yuuxul ma benn affaire boo xamante ne ñi toog di seetaan ci biir Rewind laataa ngay dem di defi li nga xam ne moom moo di noonu ndax émission bi nag particularité bi mooy mhm. vidéo bi fii lañ koy defee euh, ci li nga xam ne mhm. euh, boo au sortir de l'émission da ngay am vidéo boo xam ni exclusivement pour Rewind la wuy léeg-léeg dañ maa yóbbanti tey laay wax wax. waaw waaw waxal. Sénégal déglu liit maay. wuy déglu ti liit maay doomu Fatou Seye wax doomu Pikine jaa ngi nii. xanaa xamoo guy guddaar gaa ngi xale yi ci mën a jànge yéeg. mag ñi ma jàngal waaye wat naa ci yàlla buur bi ku ma makku ney su ma maase woon ak yow jamono dinaa xëy lu deñ joxal ma ñi cër waa waawaay rakk yi nga def leen ni say rakk yoo bokkal neeg baay xanaa xamoo nit ku baax du ñàkk noon looloo waral képp si xëy di way ay noonam waxi noon yay waral ngay avancé xanaa xamoo bu la sa yaay ñaanalee mhm. bu la sa yaay ñaanalee te ngay waykat mhm. war ngaa toog sa xel di dem ci moom moo tax ma naan sama yaay lay way di ko ñaanal gudd fan wér fekkee li mu def ci man ba may gone lu ma koy fayee xanaa di ko way abu ah, ñu ñëw nag ci li nga xam ne moom moo di morso bi ah hmm? mu nekk morceau bu am solo boo xamante ne pikinité la tudd wala noonu la tudd morceau bi pikinité la tudd pour pourquoi pikinité ndax ci ban contexte ban contexte kañ la woon waaw mooy que ni hmm. ci simbal ci simb laa ko jëlee quoi inspiration bi fu la duggee quoi euh, simb simb laa doon way Pikine ba mu neex ma may woy nii ko affaire bi neex trop mooy booyee di sànni xeere rek simb si hmm. chaque instant ñuy sànni ku xam nga ah, des fois bu ñu bëggee sant bu ñu amul bee dañuy sant mais des fois da ngay jàppale ay noonu la ak yooyu ci foo la commencé quoi mm. maanaam feccal feccu pikinité mm-hmm. mooy lii bés kanam nañ ko fi def nga gis ko quoi comprendre nga ci noonu la ñëwee quoi léegi su ma koy way naan adduna coono neen la xam nga bu sama dund yàggee sama dund yaa di ci way solution comme solu morceau solution bi nii mm-hmm. ci la jóge ci la morceau nan bi jóge mm-hmm. léegi ma dem nag ba xam ne morceau bi taxaw na ma dem ci suma grand frère Amadou comme moom morceau bi ma xalaat rek ci moom laay dem bu ma demee mu juyel ma ma woy mu ne ma ok lii baax na ba tax na keroog bi ñu ñëw ci Ibou dugal morceau noonu bi biñ toogee Ibou dafa toog Baakan toog ma toog Amadou toog mu ne Amadou jëlal guitare Amadou jël guitare gi mu ne Baakan jëlal ciol mi nga tëgg Baakan jël ciol Ibou toog def nii yor clavier mais jiwul noonu ma nit nit ku baax du ñàkk noonu la waral ma xëy di way man samay noonu waxu noon yay waral may avancé en sonné Ibou ne ma da noppi boo waxee benn da ngay noppi baakan tëgg ah. baakan ne ki dara gën kaaj kaaj ki gën ceece dër gën di jobax ki jobax xuras kin ki gën ma dégg affaire bi neex mu ñu ñu continuer mhm. léegi man maa ngi jàppoon ni morceau bi bu ñu koy def dana war a noppalu une semaine ibu ne ma noonu nga tempo bi noonu ma woy tempo bi neex ma jàpp di way di way di improviser mhm. yàlla dimbali ñu ñu pare morceau bi ci même jour woowu le même jour lan pare ci morceau boobu ma dem ñibbi léegi yow euh, morceau bi bu ñu koy déglu bu baax yaa ngi ci lim di ci wax nit ñi nga xamante ne ak ki nga xam ne moom moo ñu gën ñun ñëpp muy sallallahu alayhi wa sallam euh, bis bu set dañ koy jël en référence mm-hmm. ndax nag euh, ba ko yàlla tegee fi mu ko teg jikkoom moom moo tax mm-hmm. waaye heure bu ne yaa ngi koy wax ci biir way bi yaa ngi naan mm-hmm. ah moom sax dafa amoon ay noonu fokk nit ñi di jéggaleeg yu demee noonu lan nga wax lan moo ci topp ci loolu nga wax xam nga dèjà Muhammad sallallahu alayhi wa mooy gën gi mindeef ñun fekkewuñ sax ñi fekkee ay ay kiyam lu ñu tudd mhm. ay jamono jamonoom mais ngëm gin am ngëm gin yàlla ma dañ ko maanaam dañ koy sante yàlla ba pare dañ ko sante moom ndax moom ñaanoon loolu lii mhm. comprendre nga mhm. te dafa ne xeetam duñ lakk ñun yàlla boolañ ci kon lépp luy def rek dañuy jël référence moom comprendre nga boo gisee moo woy ba mu yàgg ma jigéen ne Muhammadu Rasulullaay ay waay moo la gënoon fuuf ëppoon ni noonu gëm la mu gëm xam la mu doon abu jàppal non foofu yàlla xam na ni bu may way sama xel mi ci nangu loolu rek la nekk sama xel dafa nekk ci nangaloo bi muy woy da nga doon li nga doon man ma doon li ma doon mm-hmm. <clears throat> kippeel li nga doon bàyyi mag li ma doon bi muy woy loolu dama xam ne rek exemple ki ni ki dem bañ naan ko yow da doon li nga doon man ma doon li ma doon mm-hmm. kon kooku jàppali noonu la quoi mm-hmm. parce que kippewul lu mu doon rek moom noonu la ci yow loolu moo ma inspiré muy comme comme woy naa Seydina Mohamed te kenn ku nekk ak li yàlla ku ne xam na ni Seydina Mohamed Serigne Touba moom rek la bëgg maam Alaaji Maalik moom la bëgg bu Kunta noonu ak sunu Serigne fi nekk moom Baye Laay ma ne nag comme woy naa Seydina Mohamed xaar ma teg ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo tax ñu xam Seydina Mohamed mhm. caa ni Ahmadou Bamba Touba bëri na maanaam woon nay noonu mhm. yaa ngi dégg maam Limaamu Laay bëri woon nay noonu ay Alaaji Malik c'est ku kulli awliyaa ngi barxaama mhm. ay waay Sidi barxaam ñas ñas ñas ñas Kumba Abdallah ñas aw waaw waaw ñu ne bëri woon nay noonu ma ne nag ki ngay àndal ànd bu yàgg lool mais ànd bi su yàggee ba jaaxal la yaa ngi dégg ànd bu yàgg lool lool ba jaaxal la dëgg dëgg kii yelloon na ab woyam moo tax ma ne dëgg dëgg yéen ñi dinaa fexe nu ma leen seetsee morceau yi ñun bi ñu koy def di woy Youssou nduur ci studio ba maanaam pare wuñu woon sax pour woy ko mais dañooy ñëw exemple comme li ma la wax ci noonu ak ànd bu yàgg dèjà man maa ngi woy di woy beneen morceau sama xel nay yar ci Youssou Ndour yàlla xam na ne bi ko ñu toog bi def ma ne ko damay def morceau Youssou Ndour bi mu ne ma lan la ñuy def morceau bi ak beneen morceau noonu nag dafa benn morceau boo xam noonu la tuddoon mu ne ma doo woy ñaari noonu Mm-hmm. léegi nag il faut nga woy benn morceau mbëggeel mm-hmm. morceau Youssou Ndour bi neex na mm-hmm. ci la ñu ñëwee ne Youssou maa jigéen te Youssou Ndour maa jigéen ku ne xam na ni yaa dem ba bitim réew bit bi ma ko na ko euh, nu mu tudd Ablaye Mboub suñu père na ko mooy bu na njaay maa jigéen na njaay ba jolof ma reet naan bu na yaa ba num teen <laughs> noonu ma xalaat oh, yaa ngi dégg ma xalaat ne nag comme Youssou Ndour nag comme yàlla dafa def euh, Sénégal mosuloon dem mondial mondial 98 dëkk yu bari dem na nu mais Sénégal mosuloon dem yaa ngi dégg. Mhm. xamuloon sax luy mondial. Mhm. mais ñu jël benn doomu aadama muy Youssou Ndour fan la dëkk ñu ne Medina gi doomu day soxna bu Iliman Ndour. soo gi digg ak biram diggi Sambala Koro Moussa su sàmba Sambala Ganjule gaa yi jël ko yóbbu ko mu nekk ci stade bi di woy naan ndaje bu neexee day tas bu naqaree day tas xam nga loolu tubaab dégg ko. Mhm. mais façaatu Youssou Ndour jaaxal na réew mi. ma xalaat nag ne ah Youssou Ndour mi kat ku jar a la. nga rànd ko ci image bi may xalaat naan li ma wax nii télé laa nekk de xalaatu man way Youssou Ndour kese de dama ne képp ku def jaloore jamono ji naa la way léegi ma taamu ko ci moom ak père Doudou Ndiaye Rose yàlla na ko yàlla yërëm yaa ngi dégg parce que Doudou Ndiaye Rose li mu defal mhm. ba ma woy ko ba defal morceau bi parce que maa Rose jaaraab ma ak lee uh-huh. mooy nga léegi bi ñu demee nag Ibou tànn morceau yi uh-huh. bi ñu defee def nañ fi lu toll ay vingt sept morceau uh-huh. mais Ibou non non dafa toog rek nañ li ngeen di def xam nga ñi doo mën a wax xale nga et puis de deux dañ ah, waaye ba nga defee def na buum ma dara mu ne ma toj nga fi ma ñibbi muy defar di defar defar ba morceau yaay bi defar na ko mu ñu ne ko dama koy woyaat dimbali ma rek mu ne ma yow toj nga fi may wax mu ne ma abu yaa dëgër ma dem ñibbi mais gis mu ñëwaatee. ba déglu intro bi. Mhm. mu teg loxo moom moo gée. parara parararararara shabada bada bada bada ko grand lii la neex ma lii baax nga commencé rek ci damaa bëgg a tekki mu def li mu def ah euh, léegi euh, li ma bëgg abu ñu dellu siwaat rek ba tey ci li nga xam ne moom moo di noon bi mhm. euh, fi mu toll ni yow yaakaar nga ne say noon ñoo la terrassé ndax am nga ay noon xam nga ku yàlla bind ku ne mhm. da ngay ñaan yàlla am ay noon mais xam nga man tey boo nekkoon su ma noonu du ma toog ci tele bi naan kersi mooy sama noonu du ma ko wax yaa ngi dégg man de noonu ma kenn mais des fois billaay dinaa dox ba gis ko ma bañ noo koy xamee li ma lay nettali nii yàggul dara noo koy xamee dugg naa ci benn géew di way fan yee passé mhm. des fois damay toog sama kër di jooy nag loolu moo may mett nag ci aar damay dem ba ci biir naan man bu démb doon tey du ma way billaay nekk naa ci géew di way li ma la wax ni yàggul dara biir gazelle mhm. di way ñëpp kontaan am benn femme bu jóg fi mu toog maa ngi taxaw di way de femme bi ñëw ba jege ma ma naan ah gars yi dañu di arrière parce que instant yi ñëpp ngi fecc. Mhm. bi ma leen di sama loxo daf ma bu max. barki alxuraanu karim te def ma ko dara. li may wax ni bu dee mi ngi seen baal naa ko nag mais yàlla xam na ni keroog tëdd naa loolu maam tëdd naa bu sama biir nag di jooy daf ma métti trop kontaan naa <laughs> euh, jotaay saa bu ñu ko defee rek nii lay demee mu nekkoon rek numéro 2 wu li nga xam ne moom moo di seen émission Rewind di remercier toute l'équipe bokk na ci Jatou Amza ñoom Abdourahmane Mao Cissé euh, Boubacar Ndour nga xam ne moom moo di nag producteur émission bi ak i nag képp koo xamante ne rek jàpp nga ci émission bi ak itam ñoom jaa ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier waaye di remercier également euh, bu baax ki nga xamante ne rek moom moo di Aya Couture muy madame Diawara nga xam ne rek moom a habillé robe ak itam sama rak Nene Diallo muy fekk borom Nayman coiffure di bàyyi nag abu mu dem léegi léegi di leen xanaa nga fàtte sama fecckat yi ñi ma àndal <laughs> waaw muy nag kiawoykat dia ak ak Ndeye Gueye ñooy fas yéene ñëw nag defal leen vidéo boo xam ne amul fenn muy nag clip bu pikinité hmm. abu di ci way nag naan euh, waxu noon lan mooy promotion nga ni lan nan na waxu noon di nekkee promotion promotion parce que keps déjà euh, ko ko sama sama sama yaay mën naa bañ a xam keps uh-huh. ma toog ma naan ko Kebs ni muy solo Kebs nii Kebs di yàq dara rek. ba benn jour ñi génnal télé. mu dégg ñaan man Kebs maa ngi nuyu ñëpp. bu gisee sa comportement bu rafet. day wuteeg maanaam bala ma doon yàq sa der. ci lay jaaree nag bëgg la. promo et puis xam na la mi ngi yokk mi ngi yokk sa dóor ah, ah, te ñun tur soxla ko daal waxul noonu ñu jàppee ko promotion waaw mais na ah. leer eh, leeral ko eh, waaye ni ma bëgg <laughs> ma bëgg ñëpp kontaan nañ jógal dem ànd ak li nga xam ne moom moo di vidéo exclusivité amul boo fàtte question yi non jeex na tàkk amul boo fàtte non jeexul yow du ma doyal yow mais jeex na demal léegi nag fi mu toll nii nag vidéo bi muy rek pikinité vas-y Abou àndandoog xale yi